bés bi day xaadim rasul waaye day day Cheikh Ibra Fall ndax day taalibe piir nit piir suñ dee waajal bisam nag ñëw fi fekk leen fi day daal sunum xel rafetal tamit suñ jox suñ ñëw bi nag day aada mooy daje biñ daje fii di waxtaane lu jëm ci bisu màggal bi ak di leen fàttali wartee fi nga xam ne yéen di leen a war ci bis bi ndax fu mbooloo yi daje sécurité mbooloo mu yéen la war fu mbooloo yi daje seenum pàcc yéen la war moo tax nag su bis yi ñëwee ñu ñëw fii di leen ko fàttali naka jekk daa ngeen ci taxaw naka jekk daa ngeen ci góorgóorlu def li ngeen ci mën lépp muy Sonatel muy Senelec muy muy muy ñëpp rek ñëpp ci taxaw nañ ci war a taxaw borom bis bi nag jar na ko ndax ku ko lebal dafa amuk pay dafa futtiku woon di liggéey sëñ tubaa ba sëñ tubaa tëb kàttan kàttan googee nag koo bëgg da ngay barkale ci bisam bi ci jëf ci wax ak ci lu koy jagal ndax mbiram jag na dem jëkkës tey góor nag ñi ngi leen di ñaan yéen ñëpp yéen sëriñ yi fi nekk yëpp yàlla yokk leen ba ngeen yëg ko ndax gis nañ taxawaay ci bis bi ak ni ni mu leen yittalee sëñ Abdou Lahad Ka dafa am taxawaay yoo xam ni dooma koy taxaw waaye këru xaqiiqa rek taalibe yi ñoo nekk doom yi moo tax sëñ bi jiital lépp teg ko ci nga nekk doom di taalibe te di ko rafetal soo ko rafetul tam dañ ko jël ci solo loxo waaye da koo rafetal matal ko kon nag rafetal boobu ngeen ngi ci sant bu baax a baax di ci gërëm yaa doon jox ko gouverneur ma jàpp dal bi te ma ko yëgale noonu bakkaat yi yëpp kon suñu teewaay gi fi day aada rek waaye doy na sëkk yéen rek ak njabootu seen daal di taalibe yi ngeen teew ci dëggal ñun ñëpp taalibe lañ waaye nag yéen ñii yéenay taalibe yi yéen la seen daal jur yéenay njabootam kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp dana weesu lépp saa bu ñu fi ma wax leen suñuy bëgg-bëgg ak suñuy itte defe ngeen ko ni nu ko bëggee ba man mi nga xam ni yaakaar naa yàgg na ma jiite màggal bi mosuma ci gis benn raq-raq te yàlla mi ma tiim xam na ko te moo gisoon ni dama koy wax kon ñu ngi leen di gën a fedd li di gën a rafet jot ci ni li ñuy dëgmal ni li weesu rek lay mel di sant nag bu baax ndax yàlla dafa dogal ay kóllëre dox suma diggante yoo xam ni defe naa xam ngeen ko di beral beneen nuyoo tam suñu fi bii nga xam ni suma wëllëre moom dafa yàgg yàlla jëlee ko fa mu nekkoon andi ko fii ci Touba lu ci baree bari ñu ci diisoo di ci waxtaan ba tax na ñun ñu fi ñëw ñëpp ci turu sii Sidi lañ fi ñëwee. wóotu ko fi te xamoon nañ nitam ni ko sëriñ am sutu waxee Abdou Lahad Kamiri bu ñëwoon ak sëriñ Lahad Jaxate ñoom ak njaboot gi rek danañ ñu mën a wóotu ci lépp ci taxawaay waaye jëmmal bis bi rek moo fi suñu jataay waaye ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp te bëggit di ñaan bu ñuy def réunion évaluation bi li ñu tënk fii lépp su boobaa luñ ca xam ne mën naa am rek ñu leeral ko foofa ba mu leer mu ndax saytu bi ñuy saytuwaat doxinu magal gi loolu mooy tax ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. yu mel ni suy ñëw dañ koy ànd ak comité d'organisation bi pour saytu lépp loo xam ne am nañ yaakaar ne état war na ci mën a dugal loxoom ndax ci loosam la la di rafet bu baax tamit ni liggéey bi tëddee ci wàllu.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 dina def si boobu teel ñoo jébbal maintenant rapport bi nga xam ne moo gis moo génn ci waxtaan bi ñaan rek suñu borom encore une fois yóbbuñ ci jàmm ba lépp loo xam ne également ñaan nañ ko ci suñu borom lawal ko ci ci réew mi donc on a loolu ñu xam di ko euh, yëkkati pour tëj waxtaan bi après jox siñ bi rek mu ñaanaat ñu jéem yëkkati jotaay bi asalaamaaleykum wa rahmatulah